bi ci des nag mooy lii nga xam ne dajale nañ ko ci histoire sëriñ bi doon ko bind yaakaar naa ne dëgg moom bu taxawee rek xel yépp a cay daje ndax man baa ko xelmatee rek damaa daal di jënd téere yi ca Ndakaaru yónnee ko sëñ Seexuna Abdul Wadoud mii yaakaar naa jot naa la sëriñ Sam ne bay boo ngeen gaaw bay boo ngeen gaaw tontu ci te liggéey yàggut sëriñ Basiiru mi wax ci sëriñ biir jox leen ndigal sëñ Ahmadu ànd ak yéen nag ci ndigal loolee di ca dox ba ndigal la sotti tey jii ñu war koo gaaral ñëpp jariñoo ko ma bëgg nag lii may wax ku ci am cër rek na nga jël cër ba xam ne yow laay waxal nga jël ca lang ca moom koo xam ne wax ji laal na la rek xamal ne war nga caa jël la nga ca moom jëfandikoo ko mooy képp koo xam ne laal nga ca mbind ma wala sa baat man ca dara wala sa kàttan man ca dara xamal ne njuumte am na loo xam ne njuumte lañ ko tudde waaye ñoo ko tey du njuumte ndax njuumte mbooloo du ko def njuumte day doon benn ak ñaar waaye njuumte yu te ni yii ñu juum moom luñ tey la def ko te duñ ko ca bàyyi ndax gënuñoo dëkk ci réew mi ëpp ñu nu xam-xam te lii ñu ko weddee firil na ko kon nag ñaara mën a am ñu tiri lañ def ci siñ bi bam set wecc indi lii dëgg teg fa lañ fa waxoon lépp te du dëgg nañ ko dindi benn par benn bam set wecc ñu indi lii dëgg teg fa waaye mayu ñu ñu fab loo xam ne dara amu ca nam leen neexee lañ ko waxee sos lu leen neex bàyyi ko fa bu ëllëgee suñuy njaboot di ko gis te gone yi ñooy avenir réew mi bu ëllëgee ñu jàpp ne nii la sëñ Tuubaa mel nii la sëñ Tuubaa toll te sëñ Tuubaa yooyu su na foofu tollut noonu li ci gën a gàtt rek mooy nu ñuy tudd histoire yoonu murit ba àggal te tuddoo màggalu Tuubaa tuddoo Tuubaa ci boppam loolu yar muñ sangul la dafa leer nañ la ca gannaaw nag ñi ami bët ñi ngi koy xool di ko xam jëruñu di ko tudd waaye li daal def ngeen li ngeen war a def yoon wi am na ndam ndax xam nañ ne am nañ gone yu dëgër yoo xam ne am nañ xam-xam bu doy sëkk boo xam duñ jëggaane fenn lenn luñ dugal ci yoon wi te wuri cee bokk danañ ko ci génne lu ci mat a dugal danañ ko ci dugal waaye lu ci mat a génne danañ ko ci génne te ci yar ak ci teggin lañ ko ci génne uddu ila sabili bi bil hikmati wal mawizati al hasana la leen sëñ bi jàngal te moom la ñu tare nañ neex nañ neex a nañ neex a waxal te dégg liñ leen di déy mooy ci ci njëlbeen ñu ngi wax ak ñoom ciy teggin lañ tuumaal sëñ bi wane ne ay njuumte la te ñoo ko tey nañ ko dindi ci téere bi ma set wecc indi lii boroom xam-xam yii wax ndax ñoom ba ñuy tàmbali liggéey bi newoon nañ leen bu ngeen bëggee ñu ànd ak yéen ci liggéey bi yoon woo xam ne sëñ Basiiru bind na ci sëñ Mat Laamin Jóob bind ci ñi mujj seen gannaaw bind nañ ci am lënt amu ci te buñ leen laajee ñu jox leen lu wér ñu dem seet la leen neex ñu bind ko te nanguwuñ leen a laaj loolu nag dafa am lu muy nuru te ñëpp gisandoo nañ ko xamandoo nañ ko kon nag li des mooy dellu gannaaw te bañ cee ñëg fu ñu tuddoon sëñ bi ak lu ñu tuddoon histoire sëñ bi nañ xool li dëppoog li wa lii ñu dugal ko fa bu ñu mënul loolu nag ñu xam ne nañ far mboole lu ñu bindoon ci sëñ bi te bàyyi na noonu li ñu xam te wir ñu bindal ko suñu bopp doy noonu soxla wuñ ko nuy wan sëñ bi ne la mel soxlu ku ñuy wone sëñ bi fi la jaaroon liñ ci xam doy nañu sëñ bi doy nañu tey ëllëg sëñ bi du ku ñuy jaay du ku ñuy wone wone na boppam yàlla far na ko yonent bi far na ko ahlu badin far na ko soxlu kenn ko koy wone ni muy mel na ni ba noppi kon nag nañu bàyyeel sunum sëñ Tuubaa mi nga xam ne amuñu lu dul moom bu ñu wone ne nii la meloon fii la jaaroon ñeet yi bokkam gënuñu nu ko xam bu ñu mënee ànd ak ñun ci lii fa lillahi alhamdu bu ñu ko mënu nag nañ téye seen i téere te génne ci sëñ Tuubaa ba mu jox tàkk téere bii ñu ko weddee ba mu leer it murid yi nañ ko jënd te tasaare ko ñëpp xam ne lii ñu waxoon du dëgg dañ ko tumaal sëñ bi xam naa nag xaalu naa waaye yëf yi dafa maa metti te metti murid yëpp ndax ñoo xam ne ñi ngi dund dara jotu leen ñu jàkkaar la ñoom di leen tuumaal di leen di leen di na di wane ne ay njuumte la loolu dafa neexut dara waaye nag dañoo taseeg gone yu dal yu yew yu am xam-xam ñu woo leen ci njëkk weddi ko ci teggin yal na leen yàlla may nak deg ak top ñu nangul leen fekk ci buñ ko defutit murid kin kenn ëpp leen bop kenn ëpp leen fulla kenn ëpp leen xam-xam xam nañ li ñi def kon nak sëriñ bi noo ngi lay ñaan yow mi nga xamne masla kan nga te da nga mëna wax nga ci ñek ne leen nañ bayyi bi ñuy tuumal di wax ci mom luñ xamut ta yem ci gone yi ko jang ba xam ko lu ñeen wax ñu doylo ko nañu bayyi ak suñu sëñ Tuubaa du lu leen neex bind ci nañu bayyi ak bi nun noo ko gëm noo ko bëgg te noo xam sëñ bi nañu bàyyi li ñu xam ci moom téere sëñ Basiru baa ngi fi téere sëñ Madu Lamin Jóob a ngi fi leen li du ay njuum te tay la ñoo ko tey ku leen wax ne neex na murit yit neexu leen murit ñoom neexu leen lii ngeen def nag murit yëpp ngeen ko defal lii raw du def ci njiitul sëñ Ahmadu murit yëpp lañ ko defal ndax ñëpp ne woon ñoggu am lu leen naqari amoo lu dul kenn ñu fop ko di la ko waye falal xeetu waye falal go xamné luñu jàpp ne buñ ko défé mu sax fa bo ëllëgee kèn du ko teg fa nga ko war a wala duñ ko joxum cëram ñu wàcc ko fa ci téré mu sax fa ku di ki gis ko lool neexut ben mourid ñëpp la naqari won waye gatché guñ ci amon ak naqar buñ ci amon bi ngeen ko weddee def ko ci ay teggin def ko ci téré bi te amaan nañ ci mbékté mo raw ba faté won nañ luñ ci mosoon am ci naqar kon nak li dess moy li wa raw du def amna luñ ci wara jànge moy sëriñ bi ab joxañ la wone mooy li yoon am ci boroomi xam-xam ubbi waat na buntub ñu yokk di wéy di wéy ba du xam kenn du xam fu mu yem mooy daara ji